ak ak potu kalam. C'est plus important du territoire national. C'est bon, c'est bon. Oui. Il m'a bien escorté, c'est bien. Merci buñ boolee Dakar boobu laaj waaw bu leen bëggee bopp quoi dafa leen ñu bëgg quoi moo ne laajee donc moo gisee situation bi dana ko laaj Macky sell bi sell bi génnal ba mu neex la bu la kenn tey grand jàmm rek ngay am. Seydina Muhammad xoolal jàmm ngay am. desa Gracias. li ma taxaw si kanam. sous embargo ou quelque chose de part Quel est le problème Pourquoi on barre les, les, les actes pour rentrer chez moi Là, Vous pouvez venir. J'ai mon épouse qui dépose mon fils à l'école. Attendez. Oui. J'ai mon épouse. Oui. Mon fils a cours à 10 heures au lycée. Oui. Avancez. Défendez, ça c'est mon épouse. Vous ne pouvez pas grand le Voilà. Maintenant c'est la sortie. Il y a un de le bout Voilà. Mon fils. Et sa femme a si président la président on son ah vous appelez Macky. C'est président c'est vous appelez vous j'espère que vous n'appelez pas Sall. pour qu'il autorise là que famille puisse sortir. Hein? Monsieur

ngeen sécurité lii Sénégal Sénégal rek la Sénégal rek la Sénégal merci beaucoup bravo les gars un citoyen Thank you.

panique bi nga xam ne Macky Sall am na ne parce que lii rek doy na manifestation déjà waaye nekkatum kiréwu droit ndax ab citoyen sénégalais boo xam ne amul benn interdiction bu ko frappé nga ne du génn këram amul sañ-sañ du génn këram dem njabootam bu ñu waree génn gis ngeen dama kan. obligé accompagner sama soxla ba fii léegi la sama eh, eh, bon bi jóge marché waaye dañoo bañ taxi bi dugg jàppale ko pour ñu dugal bagage yi loolu nag panique la rek parce que ku ñu ne dangay ngay nga ne du ñu manifester xam ngeen lii ñu déployé tey ci ay ay moyens pour ne dañuy tere manifestation am bu ñu bàyyoon manifestation bi lu gën a néew loolu la leen di jaral waaye ñàkk gis-gis ak ñàkk xam-xam ak dëkkee ci panique jox la réew ñu ne la defaral doxalal yoon doxaloo yoon ba mbir mi war laa dab nga affolé dinañ ñëwaat sax fan yi ci wax leen li tax Macky Sall tey mu tiit tiit gi mu tiit te mu jara ko bakkanam plutôt ko ñàkk nguur gi parce que moom xam na li mu def dinañ leen ci jox ay firnde yu leer a leer a leer moom ak ñu bëri ñu ko wër loolu mooy li xew Sénégal dafa jot nag sénégalais yi xam ni bu dee caaxa jàpp nañ ni caaxaan ak voté ak dem urne moo fi jëlee Macky Sall dañuy nax suñu bopp il faut ñu won Macky Sall ni moomu réew mi doon ko ci ay waajuram niñ ko ko joxe woon noonu lañ ko buggee mu delloo ko ni

xam nañ ko incha allah rek lu ko laaj ñu dañu ko def on va moom la wax moom la ñu def. tànk ak tànk baggal bagg ñun wóor kenn doyuñu si si si ñun sa protest sa protection ñun képp la doy ginnaaw yàlla ak li wax ne askan Sénégal la jot si bopp wax naa seen comme zéro bi ñu la bàyyi ñu ne moom fii la jàmbaar yàlla dafa dëgg war naa Cheikhul Khadim duñ la bàyyi mukk ci at bi gasafal moom ko ah dundal yàgg yàgg li nga yor yàgg yàgg li nga yor Ah bon? Kesinlikle.